jaajëfal laaj sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suutura teraanga ak poche def dara ay bés yi génn biñ koy génn noo ngi tolloon ci e, ak ñàkk ak ni ko xeexe mu doon yóbbalu candidat yi bëgg laaj réew mi candidat yi bëgg laaj réew mi waaw noonu ko professeur Penda Mbow waxe nag réew mu toll ni sunum réew dix-huit million dix-huit million ñetti téeméeri parti jàpp ñeent nga xam ne boo leen ko séddale woon waaw dix-huit million divisé par trois cent trois cent parti ku ne li muy gàddu mënu koo fal moo tax ñu bëgg leen di yóbbal ñu xam ne mbir mi du enjeu bu ci nekk ci wàllu falu am ñu nga àndal am li ci war nekk mooy programme waaye ma defe ne bu programme jógoon ñépp bëgg a defar duñ am mukk téeméeri parti ñëpp bëgg a defar duñ am mukk téeméeri parti waaye ñi ki bëgg defaru ak ki bëgg defar duñu benn ki bëgg a defaru daa falu pour defaru ki bëgg a defar nag moom dafay falu pour mu defar kon parti yu bari yi jëru ko woon juróom fukk ëpp na ci parti fukki parti sax ci mu réew ëpp na waxu nag téeméer téeméer ak juróom fukk téeméer ñaari téeméer ak juróom ñetti téeméer ñetti téeméeri ci réew mu toll ni suñu réew mi dix-huit mille dix-huit millions àggaguñ trente moo tax day jafe day jafe lool fi ne bu ñu doon campagne sax pour nga pour nga jàpp ci programme nit daanaka du yomb ndax campagne bi su boobaa pëcc xoogeeg meeting yeeg sànnenti xeer yi mooy ëpp ñëw ca tele ba wax nu programme mbokk yi ku fi bëgg a jóge jëleeg ñàkk ndax waxoon naa su maam aadam ba muy dugg ci aljanna ja borom bi da ko waxoon programme mu àdduna programme mu ak programme àdduna programme mu mooy inna laka ala tajua fiha wala taara wa annaka laa tasma'u fiihaa wala tadhaa boo ñëwee àdduna nag yaay taxaw dër pour loola bañ a am waaw li fi jële ñàkk mu ne ah, mun ne ko yaa koy def de maanaam li fi jële xiif li fi jële tëdd biti li fi jële mar li fi jële euh, li fi jële xiif yooyu yaa ci taxaw ñiy laaj réew mi février deux mille vingt-quatre ñu bàyyi xel ci loolu ma doon nekk ci tomb yi nag li jógoon lépp ne dañ fee bëgg jël ak ñàkk ñépp tële moo tax ba fii toog képp koo xam ne xalaat yooyee nga fi bëgg jële ak ñàkk ak ñàkk du fi jóg ndax xalaat yi dafa naax saay ba noppi waaw dafa naax saay ba noppi eh, kullama adaa lahu masaw fihi wa isa aslama alayhim qaamu alxuraan mi ngi nuy jàngal ne mépp pexe mu doom aadama lal mën naa baax tey waaye bu subaa du baax kullama adaa lahum mashaw fii wa ida aslama alayhim xaamu kooku du dem <coughs> kooku du dem fen waaw ah, Arfan kooku du dem fenn koo xam ne kii eh, bu leeree nga séqib jéego bu lëndëmee nga dellu si sa tànk nu dem waaw kullama adaa lahum mashaw fiihi wa ida aslama alayhim xaamu kii xàccub tànkam ndax daa leer dellu sib tànkam ndax daa lëndëm fi mu nekk rek lay nekk fi mu nekk rek lay nekk boobu dox dub dox boobu dox dub dox af ma yem si mukibban ala wajhihi ahda am ma yem si sawiyan ala sirati mustaqim kookoo dox borom bi nag tabaaraka wa taala ngir bañ ñu nekk ci loolu mépp sa tànk delloosiwaat ko mooy kuy dox ci melax kuy dox ci leeru melax bu neex xay nga gis fi ngay teg sa tànk nga xàcc ko melax nga fay nga si tànk bi di xaar melax gi si doo dem 1960 ba léegi 1960 ba léegi nangami at nangami at nu nekk ci lii rek liñ doon liñ doon métti lu daaw moom la ñuy métti lu ren li ñuy métti lu ren bu déwén ne moom la ñuy lu ndax lan xalaat yi nga xam ne ñoo na ñoo fi jëlee ak ñàkk ñooñu lañuy ñuy déglu ci jële fi ñàkk waaw ñooñu la ñuy déglu ci jële fi ñàkk te ñooñu moom lot tële nañ ci ba noppi tële nañ ci ba noppi waaw yàlla loolu mu bañal ñu ko mu bëgg ñu gëm ko gëm ko ci léppam ak ci féppam waaw gëm ko ci lépp gëm ko ci jaamu ko gëm ko ci wéetal ko gëm ko ci li mu jàngale ci économie gëm ko ci li mu jàngale ci politique li mu jàngale ci social li mu jàngale ci environnemental wala environnement lim jàngale ci éducation loolu lépp ñu jël ko waaye buñ complexé teg fa teg fi li baax dem jëli leneen nekk ca dañuy sonn rek dañuy sonn rek bi lislaam ñëwee subhaanahu wa taala yónni alayhi salaatu ci nit ñi ndax jaaxle gi ñu nekkee yàgg nañ ci lool ginnaaw mooy arrahmaani rahim mu bëggal nit ñi lu leen génn ci jaaxle googu mu yónni le grand professeur ne laxaat xat jaakum waaw ki nga doon xaar ñëw na waaw la xat ki nga doon xaar pour mu solutionner leen problème yi ñëw na malheureusement dañ naan laa ilaha illallah daal di ne muhammadu rasulullah def ko mbirum barkeelu teg ci suuf jàpp suñ jàmbur moo taxit moo taxit tabarkàlla waaw waa ji daa feebar dem hôpital seeti docteur Moussa gay ca Albert Royer docteur Moussa bindal ko ordonnance mu ñëw ca kër ga jëmb ko naan mu ñëw ca kër ga jëmb naan waaw mu ne ko dee dee ci naan suba ak midi ak ngoon moom mu jëmb ordonnance ba su su xëyee naan ca bu midee mu naan ca bu ngoonee mu naan ca ba xëy al ko ba xëy al ko Moussa bu mu ko bindalee ordonnance bi docteur musa daf ko waxoon demal ca pharmacie ba pharmacie salaam docteur Ba mu jaay la garab gi <laughs> wax la ni ñu koy jëfandikoo waaw moom mu jël ordonnance ba xooj suñ digganteeg alxuraan daanaka nun la waaw laaj ko professeur Oustaz Tayiru Fall waaw ca daara Baye Xaari Amar Fall wala maam ca sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu indil àdduna lu jëlee àdduna cig ñàkk indi ko cig am lu jëlee àdduna ci crise de développement indi ko ci développement jëlee àdduna ci crise des valeurs indi ko ci des valeurs lu ci nekk rek bi mu ne laa ilaha daf caa teg illallah daat ne muhammadun rasulullah kon liggéey moom la njëkk a samp ne moo fi jëleek ñàkk tàggatal nu suuf nag tàggatal nu suuf jaal lakum al dalula moo nu tàggatal suuf suuf lépp ci moom lay xewe kon famsu fii manaakibiha jóge leen fi ngeen nekk dem feneen fu ngeen nekkut wakkuloo min risqi ndax ngeen lekk ci wërsëgam bi way lay nusuuru ku dee ñibbisi mbokki lislaam bi mu ñëwee daa di fàttali waa àdduna waxi benn yonent ca yonent ya benn yonent ca yonent ya waaw mu yonent bu tudd saalix saalixu yonent yàlla saalixu moo doon jàngal waa pénc mi ne leen kenn ku nekk fi nga nekk na nga fexe ba mu jag kenn ku ne fi nga nekk na nga fexe ba mu jag tàmbalee ca kër ya kenn ku ne kër ga nga nekk fexeel ba mu jag teg ca quartier ba teg ca commune ba teg ca département ba teg ca région ba ba baa nga cee teg euh, réew mi moom la waxoon yaa xaw ma yaa xaw mi abudullah maa lakum min ilahin xayru wa anshaakum min al ardi wastaamalakum fiha mu ne yéen sama nit ñi saali way wax di wax ak waa di wax ak samuud ubudullaha déggal leen yàlla wéetal yàlla maa lakum min ilahin xayru amu leen fi jenn yàlla ju moom wa anshaakum min al ard wastaamarakum fiiha moo leen bind ngeen jóge ci suuf mu wax leen ngeen dundal suuf ansaakum minal ard suuf mooy seen yaay wastaamarakum fiha dem leen gubali ko waaw huwa ansaakum minal ard suuf mooy seen yaay wastaamarakum fiha mu sant leen ngeen wutali suuf lu mu lekk moom mii seen yaay gubal leen ko ñax wutal leen ko ripaas wutal leen ko lii tax aw nag dund wutal leen suuf lii tax suuf dund te liggéey daa bokk ci luy dundal suuf liggéey daa bokk ci luy dundal kër liggéey daa bokk ci luy dundal quartier liggéey daa bokk ci luy dundal commune coow li bu baree rek liggéey néew bu liggéey néewee coow bari te bu coow baree liggéey néew penc mi biime Sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma radiyallaahu taala anhu ma wax ne kër gu tas xëyta da ko tas waaw kër gu tas xëyta da ko tas Hmm? ñu ne waaw daal di jàng laay ja wala si na jaahadu fii na la nahdiyannahum subulana ku xëy mu ànd ak yow mbokk yi ji ak laay ji ko jiitu ca sóoratul mulki waaw sóoratul mulki ak sóoratu Huud day wane ne lislaam dafa ubbi bunti liggéey ci kanam képp ku lislaame ubbi bunt yépp def def benn euh, foire foire de liggéey liggéey bari lool ci foire bi foiru liggéey liggéey yi lool ci foire bi boo bëggee xam foire bi da ngay dem ci suuratu rahman arrahman allama alquran ba ca jeexlu ba loolu mooy foire de liggéey kon nag li yaxtaara minha jullit bi saabu bu ñëw ci foire ci liggéey bi mën naa tànn li dëppoog moom ndax buñ ko tànnalee li dëppoowut ak moom tem ne ca ña koy seetaan ñooy njëkk a sonn xaaj Malick Maodo mii ci rajo bi moo koy wax yal na ko yàlla yokk wér kon tànn léeg-léeg gone ñëw ca kër ga ne ma damay def ba defal ma ñaan dafa bokk ci laaj yi ma koy laaj yaa ko tànnal sa bopp wala dañ la koo tànnal ndax ki tànnal boppam moo gën a neex a ñaanal kiñ tànnal <laughs> waaw ki tànnal boppam série bi muy def moo gën a neex a ñaanal ki nga xam ne dañ koo tànnal série bi muy def waaw lu am solo xam nañ ci dara ki tànnal boppam série looy def mu ne série ld walla wala S yaa ko tànn mu ne waaw hmm, ku ko gën a neex a ñaaral yaa ko tànn sa bopp mu ne déedéet sama papa ma ko tànnal wala sama yaay wala suñu prof wala nangam ki tànnal boppam moo gën a neex a ñaanal ki nga xam ne dañ koo tànnal liggéey noonu la liggéey noonu la ku ci nekk daa am loo xam ne boo ca nekkee man ko mu am loo ca loo xam ne mënoo ko gis nga ci wàllu fal ñaare ku falu cim réew li lay sonal lépp mooy fal ku wër falu benn ñu santaas la walla nga yaakaar yaakaar yeneen yu bokkut yi war a am fal nit fu mu wër te nekk mu nekk fa alayhi salaam mu ngi koy wax ci hadiis isaa usnidal amru ila xayli ahlihi fantasir saa ne saa boo demee ba ñuy fal ku wër te falu takkal say bagage te xam ne àdduna ngi tukki waaw kii mbooloon ko topp waaye mënut mën naa dajale mbooloo mais munta munta développé pénc mën naa dajale mbooloo mais munta ker yi am xëy ñu daje ko pour mu dajale mbooloo waaw pour deuxième mandat walla walla walla nga xam ne dajale mbooloo moom tabarkàlla bu fekkoon mooy yóbbum réew ca kanam kon moom dana ko man waaye yëf yi du dajale mbooloo moo mënta kër ya métier ak bari aka bari san kon liggéey dafa ubbi ay buntam dem ca foire ba waaw lal ay bagaasam kenn ku ne ñëw tànn lam man li nga xam ne moom laman xibra ca la koy wane muyul ca la koy wane kifaaya ca la koy wane expérience am taxawaayam eh, soxna Seyni bu sekk ci feeraay buñ ko bàyyi woon ak boppam ci wàllu feeraay Eh, waxuma la moom ci boppam mu am ci teraanga waaye ay sëfoor ay gone ay mag ay jigéen ñu baree baree bare mën nañoo wékku ca xalaatam yooyu muy xalaat ci mbirum feeraay ba ñoo ñépp tedd ca te ki ker ya dara ba ay nit nekk ca am réewam la ko defal nun ñii di jàngale suñ jàngalu toon gone yi nuy jàngal ci mbedd mi lañuy nekk ci mbedd mi la ñuy nekk moo tax boo demee tey daaray kokki lafa fa na cay dong nga dem daaray kokki deux <laughs> moo nekk bun wala nga dem daaray kokki trois moo nekk roq kokki ba baa ngay dem daara euh, kokki treize li ci ne ci ay gone lépp éducation nationale la ñuy jàppale malheureusement bu dee sunum réew wenn men mel ni njàng mi daal moom lu bëgg am ko meneen njàng mi nag dana bëgg lu amut danañ ko téewëril nag waaw defal ko lu mu bëggutit sampal ko lu bëggut ndax kuy wax ci daaraag liy li liy jagal daaraag li koy jëme kanam boo soloon saw dal dem fasture fekk xaaj Abdul Aziz yàlla na ko yàlla yokku ne ko danoo bëggal jaamu yàlla ci daara yaakaar naa ne bu bu bu tëralee rek yëf yi sotti waaw bu tëralee rek yëf yi sotti waaw euh, tabarkalla noo ngi ciy seetaan Serigne Moustapha al mustarshiduuna wal mustarshidaati waaw ci prochain bu boobu waaw ak fa mujj <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér mbokk yi woy politique yi woy tànn yi woy fal yeeg woy fal yi lislaam dafa proposé ay yëf ndax jële fi ñàkk Karl Marx proposé ñoom Durkheim proposé ñoom Adam Smith proposé ñoom ñoom ñoom tabarkàlla li lislaam tëral nag ñu ne ko tegal fële topp gaa yi nga xam ne nag ñoom lañ tëraloon jagutoon nëgëni la gën a jàggati nëgëni la gën a jàggati su ko defee euh, lépp loo xam ne lu dagan la ci ci liggéey lislaam ubbi buntu ne tànnal li xaraam ci liggéey lu ca xaalis nekk-nekk lislaam ne kii liggéey tegal ci suuf ndax liggéey ci lu xaraam baaxul ci yaram baaxul ci euh, ci ci ci ci ci ci njaboot liggéey ci lu xaraam ndax hadis baa ngi wax ne ku lijjanti ba am lu xaraam yóbbu sa kër sa doom lekk sa jabar lekk dugg nga musiba dugal nga leen musiba hmm, waaw waaw moo tax corruption garaaw trop waaw ndax léeg-léeg nga am sa jabar am lu xew ci kër gi yow booy booy dugg ci piste yi di diagnostiquer lan moo xew ci kër gi da ci doon boole pistu indi lu xaram ci kër gi waaw benn mi seen soxna xam naa soxna su mel ni maire seen ci liberté carte bu boroom kër bi di xëy mu ne ko naan ndox tëdd moo nu gënal lekk lu xaram boo xëyee dem liggéey boo amee indil boo amul ñibbisi lekk sa loxoy neen maa ngi lay ñaan man mii toog ci kër gi ak sa njaboot gii ma la uufal bu lu indil benn cinq cent franc bu xaram waaw yenu yenul ak pañe teg fee noonu ko góor-góorlu doon defee ca eskersam ba waaw moom jeeg waaw defal lu dagan ñu jox la ci téeméer ñaari téeméer yaa xam nga ñëw ñu jënd mburu ponché moo gën nga indi fii un million boo xam ne da nga koo lijjanti dañ la dañ laa corrompre waaw danga danga def double facturation dangaa def nangam indi ko ci kër gi su ko defee doo mën a yar sa njaboot léeg-léeg sa njaboot dëgg dëng nga denc xaalis njaboot nga jël ko waa yàq sa yépp rek tabarkàlla yàlla nu yàlla yërëm yàlla nu yàlla yërëm loolu la lislaam indi ci wàllu liggéey benn ñaareel ba liggéey boobu nit di liggéey daa war a indil kii liggéey koom-koom indil ko bénéfice indil ko ak pay yooyu nga xam ne moom lay ame ci liggéey ba mooy tax ay nécessité mu mën ko caa def di liggéey di fayu di ca añ di ca reer di ca ndékki tey denc képp kuy liggéey war naa mën a am loolu di ca añ di ca reer di ca ndékki di denc ñoom soxna Khady Diop bañ daan jàngale écofemme économie familiale loolu lañ daan jàngal gone ya bu ñu màggee ku jigéen ki bu jotee ci soldub jëkkëram wala ñu fiq ko ñoom ñaar ñu mën di ca añ di ca reer di ca ndékki di ca denc waaye nit warut di liggéey ba noppi bu ca añee du ca reer wala di liggéey bu ci reere du ca ndékki walla bu añee reer ndékki du denc waaw loolu mu warta nekk mu xam lu mën di liggéey ci liggéey nag war na di ca añ di ca reer di ca ndékki di ca denc mbokk yi benn bind nga noonu bu jëm ci yóbbalu politiciens yi eh, bu fekkee sañ nañ leen yóbbal waaye daal muy li fi xam ne moo fi mën a jëlee ñàkk tabaarakallaahu sunu serveur bi ñëwaat na macha allah xam naa mën naa am duñ ko tàmbali tey waaye bu subaa danaa annoncé eh, nga xam ne ñoo ko daan topp tabaarakallaahu ñu mën caa eh, jaaraat ñoom soxna ko wan aja ak ñoom sama doom jële nekk ca eh, wakaam ndeysaan ndey booli ak ñi mel ni ñoom ak seen for yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi leen tax a yor seen i këyit bëgg la nga fi ñu tàncal xibaar ta fi ñu fàncal na ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu wax ji ci jaww ji ba yéen waa Sébikotane ngeen mën koo dégg yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa